dal leen ak jàmm si flash people digante Amina Poté ak euh, Samba Sine ñu gën ko xam si Kouthia seen ab dossier bi ñu yóbbu woon ci kanamu juge correctionnel bu Ndakaaru ginnaaw ba nga dañ ko yóbbu woon ci weeru août bi ñu waaye avocat animatrice bu TFM bi dafa sàkku tàkkaat bi de dossier ndax nee na ab clientam dafa voyagé waaye bëggoon na fekkee procès bi waral bi le procès ñu dàkkaat ko ba le 22 novembre bi ñu jëm nii Amina Poté nag nee na li muy Moi, moy délit de diffamation ba tax réclame muy réclamer somme bu 100 millions de francs CFA ci ay ndampay ak intérêt ndax itam néna na def ko jiiñ lesbienne ci ay audio yi nga xamanteni ke que dañ ko tasaare won ci internet bi ba tey ñu desandi ci information people coow li am diggante Wally Seck ak maison de production bi ñuy woyé Believe li indi won nak moy ak clip bi Wally Seck bëggoon na publier ci chaîne YouTube le 20 octobre bi wessu wayé producteur bi mom neewoon kon euh, boobu da dalul xelam ci loolee nag euh, la waxoon Wally Seck pour mu xaarandi ba moment bu opportun waaye euh, Wally Seck dégluwu ko woon après mu daal di publier clip bi loolee waraloon mu am coow diggante moom ak maison de production bi ñuy wax Believe waaye jamono ji ñu toll ñu ngi waxtaan ak producteur bi pour ñu indi ay saafara seen diggante ñoom ñaar